di nuyu coalition Bougane 2024 di nuyu duma lim damay nuyu opposition bu Sénégal ah parce que fi mu toll nii pour gàttal am na beneen opposition bu juddu bu ànd ak population bu Sénégal li nga xamante ni moom laay leeral dafa am fu ñu tàmbalee fi ñu tàmbalee mooy ñu xam jafe-jafe yi Sénégal di dund depuis 2012 jafe-jafe yooyu ànd ak injustice injustice boobu mooy dox bu dugg conseil constitutionnel parce que defe naa ñun waa gëm sa bopp amatuñu lu ñuy wax ci wàllu parrainage li ñu war a wax mooy injustice bi nga xamante ni dafa dem ba dugg ci suñu justice bu ko defee tollatuñu fu ñuy joxeñee baaraam dañu toll foo xamante ni man Assane Diouf en tant que président mouvement dëggal suñu bopp dañu toll foo xamante ni dañu war a dëggal suñu bopp te li may wax nii dama koy wax opposition bu Sénégal candidat yi jàll ak ñi nga xamante ni ñoo toog fii dañu am beneen liggéey boo xamante ni ñoom ki leen ko sas mooy population bu Sénégal te population boobu dafa am résultat yu ñuy xaar résiltat yu ñuy xaar mooy élection yi ñu jëm amul joxoñ baaram élection loo yoo xamante ni benn nit la ñu jàkkaarlool depuis 2012 muy yi Sall muy dundal injustice ci Sénégal lu kenn mësta dund te dund googu ñu ko dund 12 ans ñaari weer moo ci des ñaari weer yooyu tey bi ma yeewoo li ma njëkk a am ci information mooy nit ñi dañu dem jëli seeni carte d'identité numéro un numéro deux fii amatul benn candidat amatul amatul vingt candidat benn candidat moo fi nekk muy population bu Sénégal mooy benn candidat mooy suñu jooy yi ñu jooy at yi ñu weesu bi tege ci kaw président bu Bougane tege ko ci ñii fi toog ñu koy dund ay at man ma dund ko moo tax bu ngeen seetloo weer yi yëpp waxuma parce que booy xeex dara ba egg ci cappaandaw bi sa énergie da koy denc énergie bi la yàlla jox da koy denc pour bu bis baa nga mën koo fullaal te fullaal ko mooy affaire bi du Bougane du Assane du Tata du Abdourahmane du kenn ci nitook toog fii Sénégal dañuy jiital Sénégal ba pare ñii nga xamante ni tamit ñoo jàll comme ay candidats ñun xam nañu xam nañu information Macky Sall mën na koy dundee mais ñun ci la xëy di ndékki di ci ay di ci reer te bu tëdd jotee moom la ñuy njegenaayoo moo tax am na ay candidats yoo xamante ni ci seen doxin ci commencement ba xam nañu li xew te bu ñu eggee ci bisu wax dinañ wax parce que élection yi ñëwagul. nekkuñu ci élection législative wala élection municipale dañu nekk ci élection présidentielle te élection présidentielle bi ñu nekk nii lenn dong mooy liggéey bi mooy information képp ku ko am ci yow mi te mu nekk loo xamante ni day jalgati suñu doxin ñun nga jël ko nga teg ko ci table dootu ñu fi nekk di wax wax ju bari wala di indi yenn problème yi parce que liggéey bi dafa am fu mu toll foo xamante ni ñun eggale nañ ko fa parce que président Bougane amul fu mu duggul ci Sénégal amul fu mu duggul duggu na foo xam ne Macky Sall mosu teg tànkam en tant que président am na parrainage foo xamante ni Macky Sall mosu ko teg tànkam en tant que kon bu ñu taxawee ñu ne ñu ay Aly Ngouille ay Mame Boye Diao ay ay bun jonn ñooñu dañu jàll parrainage ñun sénégalais war nañ xoolaat suñu bokk xool fi ñu jëm loolu laa amoon lu may wax li ci des nañ ci dem 2024 merci beaucoup. merci beaucoup Assane Diouf su ko defee on accélère la cadence daal ñëw. wala dem wala dem soxna yi président Bougane ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu di nuyu président Abdourahmane ak gan yi fi nekk ñëpp di nuyu ki ñu tuddee suñu cas zéro muy Mouhamed Ben Diop mi nga xam ne dañ ne bëri rek mu symboliser mi nga xam ne moo tax ñu dajaloo di xeex parce que tey def naa ne yegg nañ ci 43 candidats yoo xam ne yii saisir nañ ko conseil constitutionnel pour démontrer ne li ñu def dara tegu ci tegu ci yoon. rien du tout ne ku nekk mën ngaa indi preuve waaye moom preuve vivante njuuñ jaaj bi mu ngi nii toog ndax doon candidat dem wala si carte d'identité ñu jox la fiche nga fay sa caution. daje sa parrainage ñëw ñu ne la yow sa bopp nekkoon ci fichier kenn mosu ko gis fenn ba Sénégal bi Sénégal mastam ñu am Mary Teuw Niane pareil Assome Diatta borom këram ci boppam nekkoon candidat ca dëkkam élection maire ñu ne ko gisuñu la ci fichier mu wat kon lii lépp xam ni mu demee li xale yi ni cas bi ni kaa bi mooy ni kaa bi mooy gis ñoo xam ne seen taxawaay wér na mu wóor ne candidat bii di Amadou Ba xajuñ ci moom guddi xajuñ ci moom bëccëg mu ne ñii naa leen jël tegee na leen ci ay moyens yu tappale du dara lu dul tappale tappale informatique nag lay doon Abdourahmane dina wax ci kaa xam nañu ñun ñëpp suñu benn lañ nga ñëw ca gré cré mu dugal gis quatorze régions signeel suñu mandataire nañu def leen ñu tiré ñu fan ngeen mën a gisee président dañuy tiré au hasard au sort Sénégal rek la ma sàmm amul feneen ñu si jour contrôle ñu ne ñu may ñun gisuñu seen cinq mille ah. ñu ne ah dëgg ku ma ah, ana ana suñu parents yi ñu ne ñu gisuñu tere ba kam lañ ko yoo woon ñoom lañ ko bàyyi woon kon manipuler nañ sunu gré ba dindil ñu une région sur quatorze ñu ne def ne waaye ñu ne dix mille parrains yi ngeen doon gisuñu leen xamuñu xamuñu leen ils sont inconnus te ñu yor même seen i carte ndax ñi lañ ci doon bañ parce que ñu nit am nañ ci yëf yi demee ku ñu parrainé dañ la naan vraiment li ñu bëggoon mooy nga jox ñu sa photocopie carte d'identité nga ne mu ngi nii joxal bu sedd bu ñu ñu dajale ko ay kees kees ñu yeewu ñoo yegg si ñu ne noonu dix mille yi gisuñu leen dindi région dindi dix mille te ewul ñu dem deuxième tour waaye ñoom ñoo ko doon xaar ndax raison bi du dara lu seen candidat bi ni ma la ko waxee amul benn taxawaay ca problème yeeg fa mu nekk am fa ay problème ja boppam ca biir camp ba dégg ngeen fii ñu naan non moom affaire bi jàpp mayonnaise bi ni ñu koy waxee mayonnaise bi jàpp ministre boo xam ne nii moo toog te conseil des ba di ko wax ah koo xam ne premier ministre. xam ngeen ne ñun ñii ñëpp bu ñu taxawee benn voyage bu ñu koy def mu taxawee ne. kon li am ba am mooy li sëñ Assane wax mooy ñu takku doon benn say loolu dafa am solo li ci des bu sax deux mois quarante cinq jours la d'abord conseil constitutionnel li ñu koy laaj. ci plainte bi ak ci recours individuel yi mooy mu delloo ñu suñu parrainage bi nga xam ne dañ koo sàcc tudd neneen suñu parrainage yi ñu sàcc nañu ko delloo dañu ko sàcc électroniquement kan mooy responsable bi kooku dañuy laaj juge bi mu wax ñu kan la ko ak kan la ko yooyu ñu sanctionné ko ndax mënuñoo am ne ci démocratie ñaata président lañu fal ci démocratie xam ne ni ñuy wotee Sénégal am na ay informaticiens informaticiens yii nag ñoo ñoom it seen responsabilité dinañ ko établir Sénégal il faut que ñuy établir responsabilité moo tax ñun suñu plainte dana dem ci ministre contre ministre de l'intérieur bi nga xam ne moom la ñu fichier électoral commission électorale nationale autonome ci ñu dégg wolof mooy kuréel gi nga xam ne yoon may na ko mu saytu élection nee fichier bi n'est pas à maanaam fichier bi motul. waa kon conseil constitutionnel ban fichier la yor bu 2019 la yor wala bu 2018 wala bu 2019 wala bu 2012 ban la ci yor kon loolu lañ bëgg ñu teg ci suuf nañ ñu delloowaat suñu ay panel ñu xam ban mooy fichier électoral bi loolu la ñu bëgg fichier électoral bi nañu ko teg ah oui ñu ngi koy wax aussi suñu partenaire ñu xam ne lii aussi kenn du ko fi nangul kenn kenn kenn du ko nangu ñëpp pare nañu lii mu lu mu leen jaral jaral nañu lu ko ëpp loolu nañu ko xam waaw jigéen ñi kenn du nekk non lii kenn du ko jigéen du ndaw du mag kon bu ñu bëggee jàmm ci réew mi mooy ñu jël recours yi ku ne ñu delloo la sa panel ñu dem ci élection ci jàmm ak salaam ku ne ñu jox la sa àq ñu jàkkaarloo ak candidat bi billaay 11h du matin 11h ñu dàq